لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيرا الحمد لله ولك الحمد بعد الرداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيرا عس جاهك يا رب وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك الله أكبر الله أكبر الله أكبر في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآياتك لا إله إلا أنت الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أوصيكم نفسي أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي بتقوى الله عز وجل وبسلة الرحم في هذا اليوم المبارك فإن الله تبارك وتعالى لعن قاطع الأرحام وعاق لوالديه وقال عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصله ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار العيد إخوة الإيمان ليس بالتجمل ولا بالتزين العيد ليس العيد لمن تجمل بالثياب وتزين بالملابس ولكن العيد لمن غفر له الذنوب ووصل رحمه وعفى واستغفر وسبح الله ونسح إخوته بالنصائح مثمرة مفيدة في حياتهم يستفيدون منها في حياتهم طول الزمان إخوة الإيمان في الله العيد عيدكم و هذا اليوم يوم يقوم المسلمون بصلة الرحم وبإعتاء الصدقات والهدايا وبالعفو والمحبة المتباين المتب المتبادل بيننا والتعاون فيما بيننا يقول جل وعلا في محكم تنجيله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول نتعاون فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون فيما ينفعنا والتعاون لإصلاح المجتمع والتعاون في تربية أبنائنا تربية إسلامية سليمة تربية يرضاها الله سبحانه وتعالى ونحاول كل المحاولة لنتخلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأخلاق الفاضلة المحمودة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه فمدحه الله سبحانه وتعالى بأخلاقه بخلقه وقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم وسئل عن عائشة رضي الله عنها ما هي خلق الرسول فقالت عائشة خلقه القرآن يعني خلق الرسول القرآن تصرفاته وأعماله وأقواله وحركاته وسكناته كلها القرآن الكريم كل الحركات كل النشاطات كل الأقوال كل الأفعال تبين لنا يعني ما ضمرت الآيات القرآنية الكريمة إخوة الإيمان في الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيرا لا إله إلا الله إخوة الإيمان في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي يلا جميلي نيو كيمبا خام اك سترام أخي ولم اك خيولم يو باواني اك مايام يو فك فن تي dul ci moom subhaanahu wa taala nga xam ni mayam yooyu xoolal sa bopp rekk nga xool li li nga am ci may yàlla yi ni mu baree te yàlla ni la may naa la ko jeeg même soo ko moyee yàlla duma ko nangu ndax yaa ngi may moy su doon koo may ma nangu lan ma moyee kenn dootul am dara kenn dootul tekki dara waaye yàlla may na la ko jeeg kon rawante bi mbokk yi mooy may yi fan lañ koy def may yi fan lañ koy def ndax may yi day buñ ko ko suñu borom maye ba noppi kenn ko nekk nag yaa ngi sa xel mu wàcc ay yonentam ñuy digle foo war a def may ya sa dund gi ci lan nga ko war a def sa xel mii ci leen nga ko war a def sa kàttan gi ci leen nga ko war a def sa alal jii ci leen nga ko war a def sa wér gi ci lan nga ko war a def yàlla yebal ay yonent pour ñu gindi la feeñalal la ngir nga gëm suñu boroom jël xéewalam yi def ko ci li ko neex ngir sa dund mën a layyi mën a tàyyi sa dund mën a leer mën a jariñ mën a am solo nga am sa aadatu daarayn te mooy nga texe fii ci àdduna texe ëllëg yowmal qiyaam mbokk yi may yooyu nag dafa am ñu ko jël defe ko li leen neex defe may yi li leen neex may yi ñu bari mën nañ ko bokkale mën nañ ko tudde ay capitaux yu la suñu borom may waaye pan nga ko def foo investir sa capital yi sa wér ga foo ko def sa temps boobu foo ko def sa jàmm ja foo ko def sa alal ji ci lan nga ko def sa xel mu réy mi ci lan nga ci def lan nga ci def am ñu jël loolee nag jox ko borom may yi ca la ko neex jël may yi jox ko boroom may ya def ci li neex boroom may yi am ñu jël may ya defe ko li neex seen bakkan ñooñu nag ku ci ne am na foo def say may am na foo ko investir résultat yi bu ñëwee dana wuute lool ndax ki jël may yépp mooyee ko yàlla ak ki jël may yi toppe ko yàlla ñooñu duñu yem mukk ilaa yawmi duñu yem ci àdduna duñu yem ci àllaaxira mbokk yi nitu yàlla yi nag foofu lañ rawantee dañoo yëgoon ni ñoom li leen yàlla jox ñeneen ñi amoon nañ ko de mooy wér ak jàmm ak xel ak kàttan ak dund gi ñu ñu boole ñoom ñu jël yooyee nag seen wér yooyu seen kattan ya seen xel ya seen xam-xam ba seen alal ya def ko ci li neex yàlla am ñu am la même chose loolu am nañu ko am de waaye ñu def ko ci leneen pour not nit ñi nax leen jëriñoo leen lëndëmalal leen dugal leen ci ay jëfi seytaane miin loo leen ay caaxaan defe naa ni may yi ñëpp am nañ ko waaye ku ne ak fan ko def kon nag du yem mukk ka nga xam ni may ya da koo jël jaamoo ko suñ borom def ko ci li neex yàlla ak ki jël may yi foyee ko caaxaane ko toppe ko bakkanam rawante bi foofu rek la nekk nañ corriger suñ bopp xool li ñu am te kenn du ko jënd ci magasin yi may yàlla may yàlla <coughs> kenn ko jële ci magasin loo ci ñàkk ñépp bu ñu dajaloo woon les scientifiques du monde ak ñi nga xam ni dañ leen a tudde ay nitu yàlla ndax loolu moom ku la neex tudde ko ko ñi nga yéene yiw te nag te te leen sa bopp man nga ni ñooñu ay nit yàlla li Sénégal di doxal ka nga ka nga nawul fonkoo ko <laughs> nga ni kooku du dara donc comme amul preuve buñ ciy joxe ku la neex nga tudde ko nit yàlla waaye ña nga naw ba tuddee leen ay xutboo ki xaw su yàlla jëlee mayam ci kenn nit maanaam ay sëriñam bu ñu dajee ñu gën a am yàlla ak ñi gën a xam àdduna pour indil la benn baaraam boo amoon suñu borom jox la ko ak ni mu jekke ñu dajaloo pour indil la bu ni mel bu ñu paree bu kawsu lañ lay indil wala bu bant loolu mooy may suñu boroom kenn du ko fekk ci magasin mbokk yi dëggu ak maandu na ngeen ko def mu nekk seen jikko léeg ñuy wax ni conciliation conciliation nationale mooy dajale nit ñëpp ñu nekk benn booloo nekk benn mbokk booloo nekk benn baax na looloo la ñëpp war a def moom la ñëpp bëgg waaye booloo nekk benn nag mënta am lu dul ci dëggu ak maandu ak jub waaye juboogu lalul ci lu dul nës-nësal ak ñug-ñugal léegi mu yàquwaat léegi te nit ñi nag miinu ñu wax dëgg ndax soo waxee dëgg rek ñu mere la boo waxee dëgg ñu ne la dagaa far waaw léegi kon fan lañuy ñuy teg dëgg dëgg moom kenn dootu ko wax waaye dama yi mënuñoo booloo nekk benn te amuñu lu ñu dajale ñépp respecté loolu mooy lan mooy maandu mooy lan mooy jub mooy lan mooy dëgg al adlu wa sidqu wal istiqaama su loolu amul juboo go fi dégg nës nësal la day tassat day yàqwaat fecc ku léegi lay def ndax dañuy wor sen bop di nax sen bop ñoo la gëna xam ni loolu mënta am bu fekkente ni taxawalu ñu maandu ak dëggu ak njub ci suñu diggante mbokk yi yàlla nga ñuy wax suñu bëggee dund ci jàmm nan la ñuy dundee mu ne su ngeen bëggee dund ci jàmm yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alqisas كتب عليكم القصاص في قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وقال أيضا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم awalu ma yuqda bayna annaasi yowma alqiyamati awalu ma yuqda bayna annaasi yowma alqiyamati addimaau addima safku dima mbokk yi yàllaa ngi wax ni su ngeen bëggee dund ci jàmm ku rey te tey ko rey te tey ko ku ko def nañ la taxawal rey la ci kanamu ñëpp mbokk yi su ngeen bëggee dund ci maandu ku dem noot nit dagg noppam nañ dagg sa nopp ku damm bañu nit nañ damm bañam ku fukk bëtu nit nañ fukk bëtam ku jam nit nañ natt jam jam jam jam ba ak fam ko jam jam ko ko moom ñoom ñaar ñu ànd faju suñu wéree noonu la suñu wérul noonu la ويلا نانا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من اللي ندل مك تجام تي ترانكيليتي تي سيكوريتي تي كوني دي دوخ تي جام سلام لودول دافا ام لوا بو خامي دافا تاخاو تيم نيب تي كين كين كين دو نيك اور دو لا لوا كين لا واخ كانغا ديفاني بوليو موكو تي تلاش موم لا تي جيتال kon nag nañu bàyyi xel loolu pour mën a dund ci jàmm mbokk yi bu fekkee loolu amul lépp ñu nës nësal ko bu boobaa danañ dund ci ay caaxaan te lu mel noonu mën naa dellu siwaat dellu siwaat dellu siwaat te kenn du ci mën dara bu fekkee ni am nañu am ay kilifa yu leen mën a aar ba bu ñu sàccee alalu xeet wi dara du leen ci fekk bu ñu jëlee alalu àdduna bi alalu askan wi buñ ko jëlee am nañu ñu leen mën a aar benn mu doon kilifa ak diine wala mu doon kilifa àdduna am na doole daal ba boo tafoo ci moom yow boo lekkee alal yi dara doo ci fekk bu fekkee ni am na ñoo xam ni boo tooñee nit mbaa nga dóor ko mbaa nga rey ko sax wala nga jam ko sax yow am na ñoo xam ni mën nañ laa làq ba dara doo ci fekk mbokk yi yaag ña leen yàq làq yéen ñëpp yem atte ci yàlla waa ji jaay doroog dem làqatu ci ab sëriñ bañ ku ko teg ay ay ay ay ay mook sëriñ ba mu làqu ñooyam ñoom lañu war a taxaw atte leen ci yoon mook sàcc ba sëriñ bay protéger ñooyam ak bu dee kilifa ak diine la wala kilifa àdduna la bu fekkee waaja koo xam ne dafa tuur deret nit demul jéggalu ka mu tuur deretam xanaa di aaru ci gannaaw kilifa kooku bu ñu xamee kilifa ga mu aaru sax dañoo war a woo kooka woowaale kilifa teg leen ci yoon dama ni réew mënul a jaar ci yoon nit ñi dund ci sécurité am ak dal lu dul dañoo teg luwaay yi ñëpp yem ci waaye bu fekkee am na ñoo xam ne nii bokkuñ ci luwaay yi bu boobaa dana nekk musiba ci ñun mbokk yi kon loolu rek la suñu boroom doon digle pour ñu mën a dund ci jàmm bu defee nag ñu bàyyi xel bu baax ni eh yàlla mayul kenn muy def lu ko neex te dara du ko ci fekk na ngeen bàyyi xel ni jullit moom araam na ci mbokk jullitam yonent bee wax de araam na ci mbokk jullitam deram bi mu di ko ŋàññ wala muy tuur deretam loolu kenn du ko def su ngeen bëggee dund ci mbokkoo ak nekk ci li yonent bi santaane woon laa tabaagatu wala tadaabaru ولا تحاسدوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحسره ولا يحقره maanaam bu ñu bëggee dund ci loolu la yonent bi noonu bu leen añaanante bu leen boddoonkonte bu leen dumóoyoonte bu leen mereyonte bu leen añaanante na ngeen jël kenn ku nekk na jël mbokkam def ko na jël mbokkam def ko mbokkam na jël jullit bi ni bi mu dendal def ko mbokkam ndax jullit mbokkam mooy jullit ngeen àndandoo nekk benn ci keppaaru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu bëggee def loolu dañuy am loo xam ni ku ci ñun dañ koy da koy moytu ku ci ñun day moytu loolu ndax day xam ni loola bu ca duggee rek mbir ma yàqu te du am protection kenn du ko protéger ko defee nag loolu muy mbir mi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax te suñu defee loolu am jàmm suñ ko deful duñu am jàmm lii lañ doon wax aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azima li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiru wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيرا مكي ني لين دي نيو دي جيتال سي نيو بي suñu kilifa gi nga xam ni doom la ci nun te yàlla def ko mu nekk kilifa dëkk bi tey nekk gi mu nekk kilifa dëkk bi tey ci la yiri faale fépp damay faral di wax ni suñ nee diw président de la république la léeg-léeg nga defe ni am na ku ko ëpp cër waaye fa yàlla daggale ña nga naw fa la ko yàlla daggale moo tax ñu ngi nuyu Monsieur Abdurrahman Diop maire de la commune de Guéoul ñu ngi koy nuyu di ko wàcce wàccuwaayam di ko wax ahlan wa sahlan wa marhaban fi masjidikum hada wa fi markazikum hada wa bayna ixwatikum huna haulaay mbokk yi ñu ngi koy nuyu mook ñu mu àndal ca maire ba yépp di liggéey ñu ngi leen di nuyu di nuyu nag président de la république de ziar premier ministre ak gouvernement bi yépp di leen ñaanal yàlla na jox leen xel mu leer may am am a ci mi ko président Bachir Bachir ak premier ministre Ousmane Sonko yàlla na yàlla defal leen kattan leeral seen xel te doole leen di sant nag ñi ñuy tuddee ay wusara ñoom ñëpp ñu nekk seen gannaaw ñu ngi leen di sant seen gouvernement di sant ñun ñi ñu dëkkal muy suñu préfet du département abu Sow di sant tabaarakallahu suñu gouverneur euh, ndey nga Ngaar ñu leen di sant ñoom ñëpp seen gouvernement bi di wax ni ñu ngi sant bu baax ñi ñu bokkal diine ji muy kilifa yi ak àdduna bi yëpp di nuyu suñu xalif généraux yëpp di ca diital ki ñu am muy Serigne Ababacar Sy Mansour ba nekk ci Tiwaawan ñu ngi koy ziar bu baax moom ak njabootam yëpp di nuyu nag imaam yi nekk fii ci dëkk bi ak ci gox bi yëpp di nuyu tabaarakallahu ñi ñu bokkal jumaa ji di ci jiital alxaj Maguette Sow mi nga xam ni wéttal la bu rëy ci biir jumaa ji yàlla baaxee ñu ko fii muy wéttali mbooloo mi di wéttali gone yi tabaarakallaahu nekk suñu biir te loolu yàgg lool yàlla na gën a yàgg nag tabaarakallaahu yàlla defal ko wér defal ko tawfiix defal ko jàmm ak salaam tabaarakallaahu di nuyu suñu xalif général mooy alxaaji Ousmane Boy ñu gën koo xam ci màgget Boy ñu ngi koy ziar di ko massawu ay coonoom di ko ñaanal mu wér am jàmm yàgg ñoo jiite ci xolam bu yaatu te bari yërmande di ñu yàgg digal ñuy def la muy digle di ñu yàgg sant mbooloo mi itam ak yàgg ñoo uuf yàlla na ko yàlla def bu jaay seydina muhammad barakatu quraanil karim di ziar Baye Cheikh Diop mi nga xam ni moom itam dañuy wax ni kàddoom ci jàkka ji ak baatam ak noddam loola dafay wéttali askan wi fii mu def ko lu yàgg lool sax ci duñu wéttali jamono bu nekk di nuyu suñu directeur des études euh, Cheikh Samb mudir di ko gën a sant te di ko ñaax di kontaan ci taxawaayam ci mbooloo mi tabaarakallaahu ak jàppaleem ak liggéeyam bu rafet bi muy liggéey fii fa tabaarakallaahu eh, di sant bu baax a baax mbooleem ñi mu àndal ci biir daara ji mooy ay rakam ak enseignant yëpp monsieur ngon Diop tabarak allah ak Mouhamad Fall ak mbollem ñi nga xamni ñi ngi yëngatu ci bir daara ci di sant suñu njabootu bopp nag fa tabarak allah muy xale yi nga xam ni taxaw nañ tem ci yëwana lépp te ànd ko ak tabarak allah ak Abdoulaye Diop ñu ànd ak seen rak Aboubacar yàlla na yàlla dimbali leen dëgëral leen di sant bu baax a baax tabaarakallaahu suñu professeur Sagna professeur Sagna ñu koy sant amul morom ci li mu ñuy jàppale ma sax teewaayam ci biir jàkk ji di ñu wéttali waaye xale yi nga xam ni ku ci ne ma nga woo sa njàng ci loo xam ni sa kilifa mënu ko di leen woo di leen naab di leen gindi ba pare di leen jàngal gratuitement te xam-xam am njëriñ lool gën lépp Sagna ñu ngi lay sant ci loolu bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla kawel sa mbir e tabaarakallaahu yow ak professeur yi nga àndal yépp Tamsir ñi ngi koy nuyu bu baax di ko sant bu baax a baax tabaarakallaahu di sant bu baax a baax suñu oustaz Mahmoud Al Misri معنا هنا نشكركم ونبذل تبارك الله نشكركم شكرا جزيلا ولا اقدر ان أن أعبر عما اشتمل عليه عليه قلبي من الفرح والسرور لوجودكم بيننا نتشرف كثيرا بوجودكم ونستفيد من نصائحكم ومن علومكم فجزاكم الله خير الجزاء أنتم وأهل الأزهر الشريف المصري تبارك الله دي سانت بو baax مبوك ييب نك Habib جا dëkkaale بو baax لا بو taxaw taxawaayam te mu rafet lool tabaarakallaahu ñu ngi koy sant fa tabaarakallaahu di sant nag e alhamdulilah e, suñu goro e nekk suñu frère muy Ibrahim Wade fa tabaarakallaahu Cheikh Ibrahim ñu ngi koy sant ci taxawaayam moom mooy magu ndeytu Wade kon goro la ci ñun donte lee rakk la ci ñun goro la encore e di di nijaayu xale yi ñu ngi ñaan ngeen wér te gudd fan te am kattan kazalika Cheikh Alioune Boy Babacar Bey yéen ñëpp ñu ngi leen sant ci taxawaay yi taxawaay yi rëy na rafet na di sant nag Géoul TV Géoul TV ak seen yitte ak seen taxawaay ak cofeel gi ngeen am ci daara ji ak teel gi ngeen teel a agsi fii loolu amuñu pay ci loolu ndax danañu wéttali te it dana biral lu baree bari ci li xew fii ci daara ji mosu leen dañ di jàppale daara ji tabarakallahu ak di présenté ay image yu rafet ci daara ji fa jazakum allahu xeyral jaza yàlla na yàlla yokk et seen rajo bi ak seen télévision bi defal leen ko ba mu nekk télévision bu mag a mag a mag a mag defal leen tawfiix barkeel seen liggéey te aar leen sàmm leen fa jazakum allahu xeyr géwul tv أيدكم الله ونصركم وحماكم ورفع قدركم آمين يا رب العالمين ñi ngi ñaan suñu borom mu dello suñu koor gi ci jamm ak salam nas'alu allah subhanahu wa ta'ala an yu'id lana الفطر بالامن والسلامه والبركه والصحه ونساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن طالت اعمارهم وحسنت وحسنت اعمالهم وصحت ابدانهم وكثرت ارزاقهم اللهم إنا نسألك يا رب يا الله أن تجعلنا من الذين إن شاء الله يكونون من الصالحين من الصالحين من المتقين من المحسنين اللهم إنا نسألك كل خير كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا مسافرا إلا ردت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين